xel taxawaayu jigéen ñi ci bërëb yi liggéeyukaay yi lii moo tax a jóg conseil national du patronat du Sénégal loolu waral ñu jébbal ab xaatim ci mbir mi kii di jëwriñ ji ñu dénk wàllum liggéey. boo defaree jigéen defar nga société donc euh, CNP dafa xam loolu moo tax nag ñu ñu xalaat def benn enquête jox ko ay experts pour ñu xool lan moo lan moo xew ci entreprise yi naka la jigéen ñi taxawee ci entreprise yi enquête boobu nag tey la ñu indi résultat yi moom la ñu indil ministre du travail euh, jébbal ko ko. boobu boobule xaatim indi ab jàngat ci li waral boobule jafe-jafe waaye tamit jéem cee indi ay saafara. loolu nag biñ ko nattee jàpp nañ ne fi mu jógee fu sori la euh, am na ci loo xam ne ci kër yi lay lay am na ci loo xam ne ci bërëbu jàngukaay yi lay soxee ko am na ci loo xam ne ci biir bërëbu liggéeykaay yi lay amee loolu nag dafa nekk loo xam ne dafa yitteel jigéen yi waaye dafa yitteel mu war a yitteel tam góor ñi. ndax lan ndax bu fekkee ne jigéen ñi jëm nañ ci kanam yëkkeeku nañu seen nekk gën a taaru gën a baax du ci ñoom rek lay am mujjanteel mais société globale bi moo ciy gagné. jëwriñ bi di rafetlu bu baax seen doxalin. tax na donc njàngat bi nga xam ne tey waa seen CNP indi nañ ko nekk na njàngat boo xam ne bu am solo la en tout cas waxtaan nañ ci diisoo nañ ci liñ ci jàpp mooy ñun ñëpp nañ ci jéem a defandoo ku nekk fi nga féete li la war. teewaayu jigéen ñi ci bërëbi liggéeykaay yi ak itam jot ci fan yu dogalee moo nekkoon li tax a jóg xaatim bi CNP bind jëwriñ ji ñu dénk wàllum liggéey di sàmba si jàpp ni secteur privé war na gën a def ay jéego ci yooyu la jafe-jafe